السلام عليكم ورحمة الله مبوك انترنيشن في بل تيفي نيو نالين بو بازي حلين دي أم بيت تساس نين دي فلين فيديو دي لين واحني أبري انفرماشن بو مكا جيه فين فيديو بني أم بني فيديو بو رفت بو بو ناي ساح بو خامن تانا جيس مين ناك دوبا إدواح دي أوف دي بني مايو خامو دان بني خالي donc loolu xaare ma vidéo bi jeex dinañ ko gis incha allah léegi mbokk internet yi vidéo bi la euh, dañu ñëw rek wax si équipe nationale du Sénégal parce que lu ñu amal solo la bu ñu test bu ñu bu ñu sukkandiko si test xibaar bu ñu wax le quotidien moog ñuy xamal ne Sénégal am na benn masse bu xamante ne maintenant si confirmé si officiel leer na mooy que dañoo war a jàmmaarloo ak kii di Iran donc euh, mu nekk benn masse boo xam ne moo ñu war a am le 27 septembre li mel ne c' est juste pour préparer suñu match yi boo xoolee. Iran xaw na peut-être ak Qatar ñu bëri noonu la ñaari affaire yi xaw a bool ñaari équipe ñaari sélection mais à savoir que tamit waaye Iran dañoo ñoom Sadio Mané ñoom ñoom Kalidou ñoom ko bëggal seen bopp moo tax bi ñu leen proposé affaire bi taxawuñu sax donc ñoom ñoo njëkk a bëgg gën bi quoi match bi nag moo war am Autriche euh, ñoom nag bëgg nañu sax beneen match avant le 27 bon, que ça soit 23 ou le 24 septembre bu ñu un bon, match comme ça mois de septembre on ngi deux matchs parce que coupe du monde moo ngi war que door seen d'ailleurs le 21 novembre donc c'est important lan moo tax euh, pays européen. parce que même moment bi même moment bi day euh, Ligue des Nations. Ligue des Nations day am Europe donc équipe yu bëri nañ moom lay joué donc équipe boo laaj jamono bi des day day refusé ma donc nga donc muñ euh, sono ñu am équipe bu comment ne voilà dina xaw a méngoo benn Belgique par exemple xaw a méngoo Hollande xam nga euh, buñ sono tamit am ay ay Colombie mu xaw a méngoo benn benn Équateur rien que pour am benn préparation bu baax quoi parce que amical c'est toujours important surtout surtout les meilleurs coupe du monde bi coupe du monde bu un peu spécial la da ngay joué deux mois xam après mën a dem te dama jàpp ne ñi si benn niveau bi championnat mën na nekk benn continuité en coupe du monde même si mën ñu ko xam mais c'est différent des coupe du monde yi yàgg yi xam nanga daan joué dañu daan dem émoussé sonn jeexal takk sonn comme dernier coupe du monde man je rappelle Sadio Mané bokkoon na ñi ay match Europe donc dafa demoon foofu da doon reyante rek le maillot rek fi mais en forme championnat je pense que mën na nekk continuité donc bu match yi dina mu élargir groupe jours sax jours comme ni en 2018. soirée xam xam donc oh, je me rappelle de Baye si la El Hadji groupe bi ay Arma Traoré gars yi gëjoon nañu ko gis moo wala leen ñun ñëpp pour tester pour xool laata coupe du monde bi bi aussi mën naa def mën na def la même chose parce que y a tellement de bons joueurs yu xamante ne am na ñu ñu xam ak ñu ñu xamul ak ñi xamante ne championnat bi nar nañu ko teg nar nañu ko teg si deux mois yi donc ñu nekk ay Sénégalais pourquoi donc pas pas les essayer si ñaari match yooyu noonu donc ça peut être très intéressant en tout cas si vidéo bi la xam leen ne rek euh, waa Sénégal match amical bi nga xamantene war nañ ko jouer mu confirmé pour l'instant le 27 septembre la ñu war a jàmmaarloo ak Iran match bi ñu koy jouer Autriche mbokk yi naa leen bàyyi ak vidéo euh, Edouard Mendy bi dañ wax rek ngeen continuer di like di partager xam nga donc joxe seen xalaat dem suñu yeneen compte Instagram Senfootball TV officiel boo leen tap boo leen ko tapé da ngeen ko gis surtout TikTok aussi tamit la même chose maa ngi leen di jaajëf